tey seen reportage mi ngi leen ñëw fii si Samba Ngent nekk dëkk boo xam ne si wàllu taarix ak si wàllu cosaan dëkk bu am taarix. dëkku dëkk bii ñu nekk nag di dëkku Sambe daf di dëkk bu am histoire ndax euh, suñu seetee cosaanu dëkk bi. day nekk euh, dëkk bu ñu sanc depuis le douzième siècle moo tax Sambé euh, village médiéval la suñu waxee tubaab euh, li ñu xam ci cosaanu village bi nag mooy ñi sant Ngom ñoo ko sanc ndax dafa am jamono vallée vallée bii nga xam ne moom lañuy ñuy la vallée fossile du Sine muy euh, vale bi jaar biir njaareem jaar fii ci Sambé ay jamono dafa nekk euh, ab fleuve la woon dafa amoon ndox moo tax ñu naan vallée morte la vallée du Sine ndax ndox mi fii la jaaroon ba ca géej euh, dafa am benn boroomi nag bu jóge woon dans le Sine tofal dex bi ba ñëw ba fii ñu koy wax njàppali Koura Ngom njàppali Koura Ngom moomu nag moo sanc Sambe fii la joge Sambe Gueye fa jóge ndax ñaari ñi nekkoon fii kenn ki moo taxawoon foofu wala ñu di ko waxtaan bi ko mu nekk kër gu mag ñoom yëpp fii la ñu dëkkoon waaw euh, euh, bi nga xamee ne euh, njàppali kurangom ñëw na fii ci Sambé dafa marié wu ak ku ñuy wax colte mbaamaan colte mbaamaan moomu nag bi mari ak moom ci la am ak moom jamaane ko mu doon jigéen am ak moom aussi Sengado Njàppali muy góor waaye eh, colte mbaaman moomu dafa mujjoon tàggoo ak eh, eh, Njàppali Kura am beneen jëkkër bu sant Kab foofa la amee ak ñoom ak kooku yeneeni doom yu ñuy wooye Jeeno Njas Kab ak keneen ki eh, damay fàtte turam ñooñu noonu bi ñu dëkkee Sambé dañoo dem ba ñi nga xam ne ñoom la Singado Ndiappali bokkal baay ñu toxu bi ñu toxoo ñëw dëkk fii Sambé digg li ko waraloon nag mooy Jeeno Njas daf doon rëbb bi nga xamee ne mu ngi rëbb ba gis benn mbaam àll jam ko fetel mbaam àll bi di daw mu topp ko ba mu réer ko waaye mu topp deret ji topp deret ji topp deret ji ba ñëw fekk ko ci benn benn benn dëdd mu nekk fa ak ay ay moroomam ndel ndel bi moo nekkoon ci ci guy gi ay eram ñoo ñoo ci nekkoon dafa bëre maanaam daal atul atul atul nag xaw ma nu ko wax ci ay wolof ndënd moomee ñu doon tëgg nag eh, dafa bokk ci cosaanu Sambe ndax eh, ndënd moomu fala des bay ko jenn njas gisee daf ne ah lii dey bi ndënd de xam naa ne lii daal doy na waar jaaxal ko lool mu nekkoon dootul rey sax phacochère yi léegi daf leen di tiital mu fetel ci kaw bu mu fetelee ci kaw rek ñu tiit dal di daw bàyyi fa ndënd mi mu récupérer ko ba mu jëlee ndënd mi nag di ñëw di dellusi di ñëw ci këram ci la tase ak géwél géwél bi nga xam ne moom mooy finalement moo yoroon ndënd mi parce que bi mu tasee moom la waxtaan ak moom expliqué ko li xew lépp ci la ko wax ne ah yend de gannaaw ay géer ngeen du ngeen yor ndënd kon ndënd mi da ngeen ñu koy jox ñun ñu yor ko ndënd moomu nag moom la ñuy wooye jam sambe yàgg na fi lool nag ba at yi passé su su ma juumul defe naa deux mille quinze la ci la euh, ci la deux mille deux mille treize la ci la jóge fi ndënd mi kenn gisatu ko dañoo xëy rek mu réer kenn xamatul fu mu ñu bari nag ñu ngi wax diwa ko jël nëbbu ko kii nee nañ dañ ko gas suul ñi naan et cetera et cetera am na sax ku waxoon ne ndënd mi ku ko bëgg a gisati da nga koy gis yow mal xiyaam nga koy gisati te safara nga koy gisee loolu daal euh, bokk na ci li ñu xam ci histoire Sambé ci maanaam cosaan bi. waaw ndënd mi nag moom ndënd mystique la parce que man mii sax gis naa ko ndënd mi moom gis naa ko euh, ndëndum esthétiquement rafetul woon ndënd la rek waaw te nee nañu euh, soo ko doon fooraat doo xool ci biir soo gisee ci biir da ngay gumbo ñoom dañ daal euh, jël rek suñ koy foor di xool fële te itam nee nañu kii lañ ko doon foore béy béy woo xam ne euh, der bi béy woo xam ne amagul doom moom lañ doon jël deram moom lañ ko doon foore nee nañu itam soo ko jamoon mu nàcc loolu nag mosuma ko vérifier mais nee nañu soo ko jamoon day nàcc te it su kër gi waree toxu day jóg xaar ba guddi mu dem fi kër gi war a toxu mu rëdd mu rëdd fi kër gi war a toxu loolu it wax nañ ko su su su kër gi doon lakk itam moom day génn boppam di tëgg pour woo nit ñi loolu it am na eh, làmbu mbapat bi fi daan am ñu koy tëgg ñu koy wax ngelo baag làmb jooju suñ ko daan su waroon commencé ndënd mi ci boppam moo koy yëgal nit ñi comme ça ñu commencé ko su waree jeexit moom moo ko yëgal nit ñi kon làmb jooju noonu la la ndënd moomu noonu la demee woon am na ay jamono itam nee nañu kenn mënu ko woon jéggi lootali bi moom waaw dali bi moom kenn mënu woon fexe ba mu jéggi ko su ko neexut parce que soo ko dugalee ci oto oto bi suy yéeg tali bi day fay arrière loolu yëpp daal wax nañ ko ci man nag yooyu wax dëgg yàlla mosuma ko vérifier waaye ndënd mi moom gis naa ko gis naa ko bi ñuy football nawetaan daan nañ fa dem ñu ñu ñaanal et cetera yooyu daal amoon na moom leer na ma ci ndënd mi dafa xëy nag ne kenn xamul fu mu dugg. wala dën bi nekkoon dën bi doon tegu ci déet bi la nekkoon ngara di ci bere kooku nag ñooñu sama se kab ñi kab ñoo ko jël foofu moom la na foofu yàggu tare sax nag ci ay setam daal foofu ci kër gi hygiène Kabb waaw xam nga dans les années mille huit cent soixante société euh, Lat Joor dafa demoon ak tubaab yi ba nekk à l'étroit au Kayoor maanaam xat fa mënatu faa am ni mu mu bëgg loolu waraloon mu mu tukki tukki bi nga xam ne moo ko taxoon mu jóge Kayoor dem Siin war a fekki ma ba jaxu Saalum war a fekki ma ba jaxu ba bi nga xamee ne jóg na nag pour dem Siin pour dem Saalum bi mu ñëwee ba jub si Sambé vallée morte du Sine boobu ma leen doon wax bi mu ci laata dugg ci la campé ci benn dëkk bu nekk foofu bi mu fa campé ak i gawaram laajte ñu ne ko am ku ko ñëw ne ko yow yaay kan mu ne ko man de maay Lat Joor Jóob bu Kayoor Kayoor mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko foo jëm mu ne Saalum de laa jëm bëgg a jaar fii jàll mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ah est-ce que waxtaan nga ak waa dëkk bi ba ñu jox la autorisation foofu buur du fi jaar de mu ne mu ne leen man maa Damel du Kayor man Damel du Kayor kenn tax maa mën a téye après ñu ne ko daal ñaan autorisation daal moo gën a wóor mu yónnee bi mu yónnee benn gawar ci ñi mu àndal mu ñëw fekk euh, waa Sambe nekk ci penc mi di yoote mu ne leen Lat Joor moo ma yónni daf ne day dem dans le Saloum bëggoon a jaar fii jàll daf leen ko yëgal nag pour bañ leen a bett mu ne ñu ne ko ah mu ne waaw mu ne ñu ne ko ah loolu de euh, euh, su ko defee def lu benn buur mës def parce que Sambe day mu sunu nanguwuñu buur jaal fi jaar fi jàll mu ne moom nag dana ko def ñu ne ko waaw soo ñëwee nga fekk ñu fi soo ñëwee ñun nga fiy fekk léegi mu dellu bi waa ji delloo wax loolu Lat Joor Lat Joor yónniwaat ko ne ko soo demee ne leen su subaa lu ñu gis man la waa waa Sambe ne ko waaw soo demee nga ne ko su su subaa su ñëwee ñun la fi fekk léegi bi mu defee noonu suba teel fajar mu jóg ak i gawaram bi nga xamee ne xam na fi ko waa Sàmbe di xaar daf leen fa bëggoon a njëkk dugg seen diggante ak teen bi parce que stratégie la woon pour xeex parce que su duggoon seen diggante ak teen bi dana dana leen euh, ëpp doole ndax nit ñi suñuy xeex danañ bëgg a naan te duñ mën a jot si teen bi mu bëggoon a dugg seen digganteeg teen bi waa Sambe mooy jàmp yi teen boobu noonu nag bi nga xamee ne waa Sambe xam nañ loolu ba ñu déggee riir mi lañ ko jiitu foofu ñoom waaye ndeketel am na koo xam ne jaar na ca gannaaw bu yéeg ci euh, daqaar gi nga xam ne moo tiimoon xare bi euh, euh, toolu xare bi àndoon nag euh, ànd àndoon nag euh, Lat Joor ñu koy wax Amandumbe Maara Amandumbe Maara mu yéeg si kaw ak fetalam xeex bi commencé métti lool nag waaw métti woon lool parce que ñaari côté yëpp amoon na ñuy ñuy daanu waaye dem nañu ba Lat Joor sentir ne ay nitam wàññeeku na lu bëri mu yónneewaat ñooñu ñëw renfort bi ñu ñëwee renfort ndekete waa Sambé yi ki leen di daaneel moom mu ngi ci kaw garab gi léegi kii euh, bi nga xamee ne xeex bi metti na nag waa Sambé yi ki ñuy wax njanpuy moom ci boppam suñu maroon moom moo jóg dem duyal leen ca teen ba indi jox leen ñu naan su jógoon di duyi nag waa Lat Joor yi yëpp dañuy tiire ci moom waaye bali dañuy dal di wadd moom mooy dem duy ñëw jox leen ñu naan ba màndi mu teg baag bi ñëw tëddaat comment continuer xarem bi nga xamee ne nag dem nañu ba waa Sambe yi kenn daanu léeg kenn daanu ñu ne ah am ku ko seetlu ne njan puy mu ne ko waaw mu ne kii ki ñuy rey mu ngi ci kaw daqaar gi mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw baax na ñu continuer xare bi mu koy teelu di ko teelu ba gis mu fetal bay delloo fetalam rek mu gis ko fa mu fa mu làqatu mu diir ko dóor ko bal mu daanu ba mu daanoo nag ndax njan puy moom balam moom soo làqu soo làqu ci garab gi sax mu mu làqat ci la euh, d'élite voilà tireur d'élite sax xam naa passé woon na ko ndax tireur d'élite mën naa si li muy gis lay tiire waaye ki nga xam ne mën naa rey lu làqu moom passé na foofu bam daanoo nag ba ba ba tiireeru Lat boobu daanoo nag ca la ca la euh, Lat xam ne mbir mi du sotti mu daldi di finalement mu dëpp dëppul sax mais dafa contourner Sambé jaari côté jurbel dem dem Kaba Kaba mooy dëkk bi ci yoonu dakaar bi euh, dem fekk fa ñuy wax Moussa Diouf Kaba moo jiite woon foofu mu dalal ko mu nekk fa pendant une semaine ba mu fa jogee nag dafa dellu Kajoor mujjul sax dem Saalum ñu bëri dañ naan dafa dem Saalum mais ci li ñu am ci xam-xam ci foofu ci gëstu biñ ci am nee nañu mujjul sax dem Saalum parce que li mu yoroon ci gawar taxatul woon mu doy ko pour mu mu mu egg ba Saalum dafa mujj dellu Kajoor li taxoon waa Sambe bañ surtout nag mooy jamono yooyu xam nañu euh, euh, euh, buur ni muy def buur su ñëwee su jaaree ci dëkk daf daan yóbbuwaale xar yaag nag yaag janq ju rafet jaag xale yu góor yu am doole yëpp la waa Saame nag dañoo xamoon lool moo tax nangu wuñ woon mu jaar fi. comme ni ñu leen ko waxee woon ma ngi noonu dégg ngeen góor gi mbay puy ni mu nettalee histoire donte nag ay âge Euh, sori na lool ma ngi daanaka toll si ay juróom-ñeent fukki at waaye jëm na nettal lañu li nga xam ne moo fi xewoon donc comme ni mu leen ko waxee itam muy dëkk bu am dëkk boo xam ne ñi nga xam ne ñooy historiens yi war nañ fi ñëw jéem a bindaat ndax doomi réew mi histoire yooyu nga xam ne doon na am si diggante buur yi ak askan bi ñu koy bind ngir ñu koy xam ndax dëkk itam histoire ak lu mu métti mett dañ ko war di nettali ndax dañuy wax ne ku xamul sa istoire sa ëllëg dana la të leeral TV leeral point net seen reportage fii si Samba Ngent